AFT TV moo leen di may xikmatul yawmi xikmatul yawmi ak Serigne Saliou Sy AFT TV wa rahiman qaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana al-huda bada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu al-uqal wa shalhu dakiran wa shakiran abad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 ñoo ngi ci di andi waxi mag ñi àndoon ak Serigne Touba euh, ku ñuy wax Serigne Modou Khady Sy doonoon doomi Serigne Malick Bassine si dafa waxoon wax ju am solo ci diggante sëriñ ak taalibe ci àndin wi nga xam ne nii moom lañ war a ànd maanaam ki ngay àndal dafa war a doon koo xam ne nii yàlla rek ko ñor euh, waaye yow it yow bi itam euh, yóbbu taalibe bi ci yàlla rek ñor la. ñooñu nag buñ àndee euh, dëgg rek la ñuy àndee moo tax dafa waxoon na sax euh, nit ku dañu réer amub reer ku ko gën a jub rek moo koy yilif maanaam ku jàng ba xam lu muy def ba noppi mënal boppam dara loolu la ci jubloo wax daldi ne kooku nag boo ko sësalee ci sa ñaar rek lay seq ak yow muy ëpp naa def ak mat naa def waaye nee na ku dañu tug réer amutub reer ku ko ëppale rek mën na koo yilif nee na kooku nag boo ko sësalee ci sa wet ñaar rek lay seq ak yow muy sañ nga ko ak mën nga ko te muy lu bari ci jamono ji kon bu ñu delloo ci njàngaleem Serigne Touba murit bi sëriñ Touba bindal na ko aw bayit sëriñ bi it Serigne Touba bindal ko bayit murit bi daf koo wax ne ko yow rek dara warul laa ñor lu rut ngërëmul yàlla benn bëgg-bëgg nga am muy àgg ci yàlla isil muridu laa yuridu abada xayra rida rahmani xaysu xaswada daal di wax sëriñ bi ne ko yow dara waru laa ñor ci taalibe bi lu àggale ko ci yàlla isil murabbi laa yuridu fil murid illa al wusula naajiyan min al marid kon kenn ku nekk bu jëloon aw bayitam di ko jëfee jàmm rek ay am te sëriñ bi dana àggale waaye taalibe bi itam dana àgg ku ñuy wax sëriñ Modou Khady Mbacke mas naa laaj sëriñ Tuubaa ne ko man daal damaa jaaxle lool Mbacke ndax ñi njëkkoon a muritu ci yow ak muriti léegi yi daal sore giñ sore dafa ëpp te boobu moo ne sëriñ baa ngi fi ci ak mu jëm euh, ne ko daal damaa gis ñu leer nañ ñi mel ni ay weer ñu mujj ñi mel ni ay biddiw di xuy sëriñ Tuubaa xamal ko ne nag ñooña dañoo jógoon ngir yàlla rek ngir àgg ci yàlla ñu mujj ñi nag dañoo jóg ngir euh, am fatxu wala ñu seen aajo faju ba ñuy faj aajo am barke am mbooloo seex ñoom yooyu leen yooyu leen yëkkati moo tax sëñ Moussa Ka way ko ne ko seex Moodu Xadi Mbàkke noonu na Bàmba lu tax ña njëkkoon a muritoo tuubaa mel ni ki weer ñu mujj ñi mel nii biddiw te xam ne yaay jant ko leeral yaa ko raw sëñ Tuuba tontu ko ne ko ñu njëkk a jóg dañoo jógoon ngir yàlla ñi mujj a jóg roy leen di daw ngir yàlla yee naaru góor fu ñu toll dollee jaaju yi fas di xaaru àgg ngir faj ajo yooye murit xamuñu woon luy barke muhaajiriin na lañu woon fa mbàkke yi la murit fii aaxiri zamaani bëgguñu lu barke amuñu imaane kon loolu rek mooy différence bi ah, kon nag yaakaar naa ne kenn ku nekk ci ñun jàngat yi war na koy teg ci kanamam fu mu toll di ko jàngat ah, Sëriñ Tuubaa itam waxoon na seex ya ci ak mu jëm ne leen bett ngeen ma ngeen bett ma ma bettaat leen ngeen bettaat ma waaw bett ngeen ma ju njëkk ji la mu jublu wax moom mooy lii ma leen andil ni ngeen ko teele wuy si muy bi ma ko wootee ni ngeen ko teele wuy si ngeen ma bettee li ma leen bettee mooy lii ci am muy ay xuyóor ak fi ak barkeek yooyu yëpp foogu leen ko ci woon loolu laa leen bettee bett ngeen bettaan ngeen ma nag mooy nii ngeen koy jariñoo taxu ko woon a jóg danaa leen bettaati sëriñ ba jëmm ja wax nag jooje lu mat a bàyyi xel la ndax xamuñu naka la ñuy bettaatee kon nañ euh, bàyyi xel loola bu baax a baax xam fu ñuy teg sunu tànk yàlla noonu sunu borom defal tawféex mboole ñu ci murit saadix yi nga xam ne nii dara du seen yitte lurut sàkku ngërëmul yàlla ak àgg ci yàlla